déjà yu combat yu bari yoo xam ne ña ngi ko fay porté mais fi mu nekk nii dafa mel ni am na ci yoo xam ne déggatuñ ci dara xam nga assemblée kilifa la ñëwul président moom la ñëwul président mooy net ba fa nekk nga xam ne ñu ko imposé teg ñu fa Amadou Mame Diop gis nañ heure heure bu convoqué bureau bi rek mooy day dàq député wa ela muy muy tëj ab député ndax bi muy njëkk convoqué bureau assemblée te fekk na am na ay lettres yu am solo yu fa dugg yoo xamante dañ ko wax pour mu convoqué bureau te keroog bi waa APR dugalee ne dañoo bëgg ñu tegg mbalaanu kiraayu ñaari député mu Massata Samb ak euh, Mamadou ci sens la la la réagir keroog Mimi bi mu koy def gis nga tegu ko ci yoon kon ensemble li ngay mën wax mooy kilifa la amul ka fa nekk xaritoo gum xaritoo couple présidentiel bi moo ko fa teg te ñun souhaité wuñu woon loolu ndax te ji ba ni ma waxee amul kenn ku bokk Yewwi Askan Wi ku ko woowee président ndax reconnaître ñu comme comme président. mais il faut ngeen ko parce que on est dans une république aussi quoi qu'on puisse dire il est le président de l'Assemblée nationale deuxième personnalité de l'État. ñu ko jalgatee rek yow bi te ko tënk moo jaar kon ñun amuñ droit mën nañu ko imposer nag ñu nangu ndax nit bu set ñu def loolu loo xamante neexu la mais ñun li wér bu wér mooy lépp luñ bañoon ci mu jiituñu bi mu eggee mi ngi dox nu ko raw parce que cour de justice war ngeen ko teg mais ndax ci ayam ci lañ gis ñu jàpp ñaari député tëj leen ci kaso bi mhm. fi may waxee ni Mamadou Niang ak Massata Samb amul dara lu leen toppee ndaw soo xamante ni dafa tolloon diggante ba léegi gisoo xamu fan la biir ba toll waa piir yi def nañ ko mat 117 plainte yoo xam ne ba léegi nii mujj fenn waaw amul kenn ku bokk ci parti opposant bi di plainte plainte bi di am siifi amul waaw même buñ la rayaloon sa yaay rayal la sa bàyyi du mujj fenn le preuve mooy Mariama Sagna mi rayoon Kër Massar ba léegi enquête amul correspondance yi amoon ci événement marché yi ba léegi fu mujj ngay laaj ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon haute cour bi jàpp nga ne ba muytul Amadou Mame Diop du répondre favorablement ci li ngeen di sàkku waaw man de awma ci yaakaar man boog dama pas personnel awma ci yaakaar waxuma nag ci en tant euh, ci kuréel Yewwi Askan mais man daal awma dara yaakaar loo xamante ni lu alors Pam Ndiaye arrestation yu bari yi euh, sànq ñu ngi koy wax jàpp nañu euh, Hannibal Djim jàpp léegi léegi ki nga wax. Azura euh, Azura Fall ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam dañ ne fa nekk ñoom Fadilou Keita ay nit dof maanaam ils ne ñu am mooy ñoom ñëpp dañoo bokk Pastef wala c'est des sympathisants de Pastef bu fekkee dañoo nekk ci tension bi ñu wax ni dañoo war def apaisement est que les autorités waruñu def vraiment bu fekkee li ñuy wax dëgg ci ñoom def apaisement commencer di libérer ñi nga xam dañ ne ñu bari ci ñoom waaw xam nga déjà li nga xamante ni moom moo doywaat ci mbir mi rek mooy déjà jàpp gu bëri gi ñëpp seetlu nañ ko te du ñu indi lu leer nañu loo xamante ne loolu la ñuy teg ci table bi ne ñii lii lañ leen di tuumaale. bu fekkente ni dañoo def ni Sénégal moom actuellement moom Pastef mooy parti bi ñu gën a persécuté ay militants. waaw daa mel ñoom kese nekk ci opposition bi de moom la ñu sentir. waaw loolu moom yàlla dogal na moo xam nga Sonko nag gars la yóbbu retraite. paa paa yeeg nijaayam bi mu fekkoon ci politique bi ñëpp la yóbbu yóbbu loolu moom réalité bu fi yàlla def la moom. kenn mënu ci dara alors li nga xamante ne moom moo ci doy waar mooy euh, ñi nga xamante ne ñoom la ñu topp parfois tuuma yi du leer ci bopp nit ñi wala boog ñu teg leen ay tuuma yoo xam boo ko gi déggee sax da jàpp sa gémmi am na ci ñoo xam ne atteinte à la sûreté de l'État lañ leen toppee maanaam ku doon jéem a coup d'état hmm. ay délits yoo xam ne ñuy coup d'état lañ ko war a toppee ñu jël ko di ko jiñ xale yu ndaw yi nga xam ne xamuñ sax nu Ami Dia force spéciale ay montants yoo xam ne matul sax un million voilà loolu loolu benn la ci fi ñoo xamante ni wax dëgg yàlla Euh, yëkkati nañ ci réew mi kaddu yoo xamante ne waruñu woon fanaan seen kër mm-hmm. fan yii yëpp ngi gis vidéo boobu di circulé ko waa jooju di di nen waaw nee nañ taawal fajiri mais waaw ñu tudd sax xawma la ci TikTok gis mais xam nga ni kooku bu doon maa ko wax jëmale ko ci pouvoir wala keneen wax ko jëmale ko ci pouvoir sëñ bi xam nga ni muy demee mm-hmm. voilà beneen bi ci topp mooy am na ci ñoo xamante ne amul benn plainte boo xamante ne topp nañ leen te pourtant tëj nañ leen ci kaso bi beneen bi ci topp mooy am na ci ñoo xamante euh, bu fekkente ni camp be la comme ni ko honorable waxee léegi boo porté plainte day am diligence rapidement ñu lijjanti ko bu fekkente ni beneen fànn nga mën naa la dresser la longue liste des sénégalais yi nga xam ne dañoo porté plainte ba léegi mujjul fenn mm. donc vraiment prisonniers politiques yi bëri nañ ci kaso bi te man je demande la libération de tous les prisonniers politiques ngir mm. jàmmi réew mi mm. jëlee fële ca Tamba indi ko indi ko fii Ndakaaru mhm. donc vraiment nekk na situation boo xamante lu doy la ba tamit li Ousmane Diagne waxoon tamit moo ci am c'est-à-dire que prisonniers politiques yi ñu ñu siiw ñi ñii la xam mais bu weesoo ñii boo demee ci kaso yi fekk fa ñoo xamante ni seen sax siiwul mais wàllum politique moo tax ñu tëj leen ci kaso yi mhm. donc boo doon def tey la liste exhaustive de tous les détenus politiques du Sénégal vraiment chiffre ay euh, a bu ñu nekkee police wala gendarmerie du ñu nangu seen avocat ñëw seet si leen am na ci ñoo xamante ne dañu leen di duma duma yu métti pour que ñuy nangu ni li ñu leen di toppee ñoo ko def. mais nit doon def na cinq jours de garde à vue. waaw xam nga loolu loolu rek déjà lu xaw a lu xaw a doy waar la euh, vraiment moo tax ma ni la te te non seulement Pastef mooy parti politique bi ñu gën a ciblé ay militants mais léegi yamatuñ sax ci militant Pastef mais sympathisant gis naa ci ay artistes. mais ba ci ba ci ba ci gars yi. dañ leen a carrément dëpp ba ñu xamee ne dama nekk ak Pastef sa amatuma contrat et tout donc bu Sénégal demee ba toll ci réew boobu est-ce que on peut mënuñoo wax ne c'est de l'acharnement. non li yëf yi kañ weesu na l'acharnement boo utiliser beneen mot bu gën a fort acharnement parce que <laughs> yaakaar naa ne moom lenn yi moom day traduire rek volonté wu fi ñu jaarale ki nga xamante ne moom mooy Khalifa Sall ak Karim Wade d'accord waaye li nga xamante ne am na wax ju gaay di wax ma dégg ko te man loolu ma dëggal ko ànd ci mooy. muy lan. élection sans présidentielle bu ñu naree décider élection pour 2024 sans Ousmane Sonko. Hmm. man jàpp naa ne élection du am ci réew man de loolu laa gëm loolu laa loolu laa yaakaar. ñu fàttali xarit si laa ne fukki ndaw ak ñaar ñi nga xam ne dañ leen a tegoon loxo ci cité kër góor gi le 2 février seen i mbir ni ki le bi lañ koy daal di vider. Mhm. ku mel ni Hannibal Djim am na second retour de parquet en attendant désignation wu euh, juge euh, maanaam euh, la désignation. demain ci ceetal la nekk sax <laughs> muy second retour de parquet boo xam ne moom la am souvent sax nit ñi dañ ciy wax ci di ko comparer ak justice yeneen réew yi. Mhm. Euh, retour de parquet déjà lan la lan lay signifier ak yooyu noonu des fois c'est un peu euh, problématique fukki ndaw yeeg ñaar moom ni ki le 16 bi dañu war a vider seen dossier xadis yi la. d'accord alors sëñ Cheikh am na tamit lenn loo xam ne xewoon na fële ca euh, Jumaay Touba mhm. lan moo xew diggante côté di ki sëñ Mountakha Bachir ak Ousmane Sonko ndax am na ay yoo xam ne dégg nañ ko. xam nga sëñ bi la la ko wax soxna xarit daa mel ne li ngay wax moo métti gars yi ndax ñoom dañoo gëmul yàlla ndax manipulation boo xalaat ñu ngi ko doon def ci diggante ku tedd gi ak président Sonko euh, sëñ Abdou na fii siyaare ji sëñ Mountakha ni mu koy defee sax màggal Porokhane bi mu génnee avant muy génn Nioro avant muy egg Nioro jaay nañ vidéo yi waa APR ñu dugal ko ci Facebook bi ne sëñ Mountakha daa wax sëñ Abdou ne ko neen Ousmane Sonko na bàyyi tooñ ba sëñ Abdou ma ngay yebal Ousmane Sonko ma ngay dem Porokhane di ko jégalu yaakaar naa loolu vidéo tas na àll bi yëpp dégg ko te yàlla xam na ne day sëñ Abdou sëñ Mountakha lañu waxante ñoom ñaar rek ko xam te turu Ousmane Sonko sax jibu fa barki démb bi président Ousmane Sonko di julli si sëñ Mountakha toog na lu ma 4 mois ñëwul si jumaa ji julli si ah, na tàkk 4 mois. yoo xam ne julli si wul ñëwul ci jumaa ji ndax diggante bi dafa def poroxaan nekk ci xalwaak yu mel noonu. Mhm. sëñ Sonko bi muy dem Touba xamutoon ne sëñ Mountakha day julli si ndax joxoon sëñ Mountakha jox na ko rendi war koo recevoir fan yu néew. dina ko mhm. recevoir mais sëñ bi bi ñun xamuñ ne sëñ bi day julli si sëñ bi xamuñ ne dinañ ñëw mais loolu tawfeex suñu borom la ak ndimbalul yàlla. kon sëñ bi moom kenn wax ko woon ne Ousmane Sonko day ñëw kenn wax ko Ousmane dina ñëw président Sonko it xamuñ ne dina fekk sëñ bi loolu nag moo leen bëgg rey ndax def nañ manipulation ak yàq gu ne bi mu ñëwee bi mu jullee pare yem ci moom président Sonko ni ko ni ko kilifa yu baax yëpp ndefeen président Sonko dem nuyu sëñ bi sëñ bi jàpp ci loxoom saafante ak moom ñeewante ko ñaanal ko ne ko bu ma génnee ci lii dinaa la woo ñu waxtaan maa yow sëñ bi loolu la ko wax la wax man maa ngi toog déglu kenn ñetteelu ma ndax boo gisee vidéo yi bis boo ko nuyoo man maa nuyu sëñ bi kon sëñ bi lu mu ko ne bàyyil coow li bëgguma dara ki ci dëgg xam nañ demeewul noonu mooy seen manipulation yi rek waaw sëñ bi ñaanal ko boo gisee sëñ bi ni mu téyee loxo Ousmane Sonko ak ni mu ko doon wax di nga xam ne kii kum ñeewante la mhm. ndax ñoom yii ñu wax yëpp sëñ bi yëgu ñoom ñooy effante rek mais li ma faral di wax rek ñun bu ñuy politique war nañu politique mais dañ ci war a génn sëñ bi ndax ñun yaakaaruñ sëriñ si pour pour pour électoral mm-hmm. ñun dañ leen a ndax suñ ko xeexu politique ñun mën nañu ko defal suñu bopp mm-hmm. waaye làqatuwuñ kenn pour def politique suñuy position dañ ko assumé mais ñoom ngay seet heure boo leen néewale ñu daw làqatu ci sëñ bi waaw te li ñu bëgg a def lépp dañ koy def mm-hmm. ndax keroog rek bi ñu wax naan waaw Pastef yi dañoo ñu def seen meeting ca ca fin ba dañ def meeting ba kër bi moo ne war ne ñoom li ñuy wax sax ñoom xamuñu ko mais li xew Touba moom amul kenn ku mas ku mën a taxaw wax ne sëñ Mountakha lii la wax président Ousmane ku dul man mii mhm. amul ku ci mën wax dara ndax ci biir jumaay Touba la nuyonte siyaare ko jox ko àddiyaam mhm. mhm. sëñ bi ñaanal ko wax ko ne ko dinaa la woo ñu waxtaan fan yu néew loolu nag moo leen man jàpp ndax bu ñu sañoon moom

da ngay introsé histoire fu mu gën a soree noonu nga koy introsé mhm. loolu moom mas di am Macky Sall mi bi mu fiy nekk pour mu gis alaaj baara ay doomi alaaj baara ñoo ko jàpp mu yóbbu ko ba ci sañu alaaj baara mais bu doon bukki ne yaa bukki ne du mas ki sañu alaaj baara ko ñu maire soir ba sëñ baara duli këram laan dal moo waral bi mu toogee mu defee loolu sëñ baara duli loolu du lu bees Touba maanaam ku xamul Touba rek mooy jàppe loolu miracle mais du miracle mhm. mais jëmmi kilifa gi moom xaar yàlla kenn ñëpp la njaboote mhm. sëñ Muntaxa yoonam newul ci politique ku dégg mhm. déclaration bi njëkk def bi ndoy xel sara murit ko mhm. Mhm. dama ci ñëpp génne maanaam kon ku ko ci bëgg a dugal yow yaa am sa intérêt yooyu défendre bi tax nga bëgg ci dugal mais sëñ Muntaxa xàmmewut Macky mooy toog fa jotaay suñ tuwaa ku ñëw mu ñaanal ñun loolu lañ comprendre moo tax musuñ koo dugal ci dara moo tax événement marché bi mu tàkkee dëkk bi tàkk bi mu yónnee ndaw circonstance bi difficile la ci la yónnee ndaw ci la yónnee ndaw. Mhm. ndax boobu Macky Sall wér na wér yàlla manifestation bu demaatee 24 heures nguuram daal te boobu waa MDD jàpp nañ manifestation bi sëñ Bass Porokhane ñëwee Ousmane Sonko xam naa la ko wax sëñ Mountakha ñu muy ñaan néew fi ñu muy digal ñu def ñoo fi nekk bu ñu woowoon Touba léegi laay taal sama oto dem wuy jug daal di woo ñoom Cheikh Tidiane Dieye ñu ngi ci leen si Muntaxa demee waatee ci màggal gi jàll neen dama leen amee bor boo xamante ni mënuma leen ko il faut que ma fay leen ko mm-hmm. kon jàpp naa ne di di di di tudd Ousmane ak sëñ bi loolu ñun xam nañ ci dara ndax Ousmane bi muy def politique ba léegi mosu toog ci genn kilifa diine te anduma jaag moom mm-hmm. man xam naa fi mu teg kilifa diine yi kilifa diine yu bëree bëri bëri da leen mettre en du bëgg dem ci ñoom lu bëri sax mu ñu jàpp ne dafay wuti ndimbalu

léegi li ñuy gis déjà réseaux sociaux yeeg déclaration yeeg émission yi est-ce que mettre finalement mal à l'aise même nitu diine yi au Sénégal parce que souvent da ngay dégg ñu wax ne xali xalif bi nee na lii kii nee na lii alors que des fois sax mën na am sax waxuñu dara. waaw loolu moom mu am tey du tey du tey du lu bees ndax Abdoulaye Wade bi muy daanu déclaration bu déclaration jënd dégg nga ko ci kilifa diine yi Abdou Diouf bi muy daan dégg nga façon déclaration bu ne donte ay xale lañ état moom buy daanu foofu mu yóbbaale ay ponkal <laughs> loolu moom. mooy mooy le minimum ci état mais nag li may wax rek mooy ñu garder seen ngor xam ne leen seen maam bàyyi ma ëpp loolu. dafa nekk ci yoonu daanu. waaw xam ne leen seen maam bàyyi ma ëpp ndax ñun nguuru Abdoulaye bi muy daanu ñu fekk nguuru Abdou Diouf bi muy daanu ñu fekk nguuru Macky Sall bi muy bii daa bii daa waaj daanu fi fekk <laughs> boo déggee yéen de. boo déggee yéen boo déggee yéen déclaration dof yi ngay dégg yëpp di nga xam ne nguur gi waaj daanu rek moo ko waral mais nag li ñuy wax mooy Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk te bu ñu jàmm moo fi am te it jàmm moo fi am ndax jàpp nañ ne mag ñaan nañ ko mais daal Macky Sall li mu wax mooy du nangu ko taal réew mi ñun ñoo du nangu mu taal réew mi. en tout cas nee na du nangu kenn waaw ñun moom dafa comprendre nit ñi fi ñu nekk ak fi nekk sore na moom li mu xam mooy nu mu toogee ci saison bi ñun réew mi ñu ko dénk moom lañ fa yéene mu delloowaat ko ci jàmm te dina ko delloo ndax jàpp naa ne takk der yii man yenn man mi ñu jàpp garde yi vue ma yenn ci commissariat police bu Mbacké dégg seen waxtaan bu fekkente ñoom la compté wu pour pour pour pour pour mën a dal ci kaw ah, civil yi ah, bu leen mettre en mal na ndax am na kenn koo xamante ne dégg ak ci dégg ak ko lii daal ñoom dégg li bi di jàngat ak ñoom yor sama oto bi léeg-léeg ñu ma arrêté man mi dégg li ñuy wax bu dee ci ñoom ngi nax boppam dañuy def seen liggéey loolu maa la ko jox information ba sécuriser nit ñi seen i bien ak seen mais dañoo am ay takk der yi dañoo am ay kër am ay njaboot ñi sant tin ñi sant mbàkk ñi sant ndaw di ay sénégalais sénégalais buy rey moroom sénégal da nga ko gis fenn kon il faut mu delloo si xelam xam ne li mu bëgg benn bépp benn responsable du ko ci topp ndax réew mi it moo ko mag te sénégal démocratie wane nañ ko 2012 2012 moo gënoon a métti fuuf bi ñoom sëñ Mbacke Ndiaye mii ne ci ginnaawam tey ji ak ñoom Farba Ngom génne di wax waxi dof arab bi dañu Abdoulaye Wade yee eh, daanu nga joxee nguur gi mu joxe ko kon Sénégal réew république la boo xamante ni ginnaaw daanuwul mars événement mars yi man jàpp naa daanu te daanoo ci Macky Sall. kon dina dem ba àgg ca cappaandaw ga. Ah, loolu laa gëm bu dee am na sens. Hmm. adhésion yi euh, les militants de Pastef foofu ca Touba fu mu toll jamono ji nag gis nañ ni euh, daf ngeen fa ay élection locale bu bu ju a sa élection locale mais élection législative résultat yi vraiment mun nañ ne Pastef moo fa teg tànk jamono ji mën nañ jox adhésion fa la toll xam nga Touba moom benn parti néew fi bu dul Pastef waaw Futuwa moom. benn part benn part dafa am muy Pastef. Ah te wane nañ ko ci élection locale yi ndax locale yi bi ñu gagné score bu yaatuwul. bi liste lat fi ñëwee cent neuf mille fois la ñu am. levée de fonds yi tamit gis nga nit ñi bu paasee Dakar gi tuwaa mu ëpp lu mu joxe te nit ñi seen i dërëm leen joxe seen i ñaar dërëm ba mat 7 millions ci benn bés. Hmm. kon jàpp na nit ñi yemuñ ci gëm projet bi. mais nit koo xamante ni boo ko laajee alalam mu joxe boo ko bayloo mu joxe boo ko ñaanloo deret mu may deretam mm-hmm. kooku wax dëgg yàlla boo bëggee xañ candidature ci ay tappale it dina joxe bakkanam pour défendre loolu benn point balaa ñuy tëj ci waxtaan bi muy lakk bi ñu nemmee ko fële ca marché Ocass mu nekk loo xam ne c'est récurrent mm-hmm. tout le temps tout temps dafa am ay lakk est-ce qu'il n'est pas jotul ñu gën a moraliser bërëb boobu wala ñu toxal ko yóbbu ko feneen ndaxte lakk yi bari na foofu laa waroon démarrer sax d'abord lakk goo xamante ni am na ci mois ñaari yoon loolu vraiment xel mënu koo nangu kon d' abord war nañu ubbi enquête lan moo walak marché ba benn bi ci topp bi damaa jàpp lépp mooy responsable bi ndax commune boo xamante ni heure bu lakk amee li muy def mooy woo ministre de mu ñëw fa wax foo xam ne tooy xëpp ba demee demee ne lakk amaat kon modernisation marché bi nga xam ne Touba ca kanam defoon na ko proposé leen ko ñoom war nañ ko mën a nangu ñu moderniser marché bi ndax ay sénégalais ñoo fa nekk ay nit ñoo xam ne ndax Touba mooy dëkk boo xamant ni commerce rek fa am hmm. amul usine gone gu jàng alxuraan ba li nga njëkk def mooy sa waajur jëndal la

Euh, sëñ bi xëy na moo ko jël xëy na sëñ bi jëlu ko loolu lépp awma ci benn information bu leer mais daal nañ ci sóoraale xale yi te xam ne ñi fa nekk ñëpp ñu ci bëri nga ñooñu ngay seen ñoo yor seen waajur yi ñii ñoo yor seen yaay te loolu rek lañu yaakaar pour dund kon lu mel noonu bu ñu koy def man de waxuma nañ bu ñu leen fa jële ndax tamit ñi jënd seen place di ci fay lu seer mhm. nit ñëw la laal ci place bi na mais nañ leen wutal fu ñu mën a nekk ba kenn du ci loru ñoom buñ lor ñee mais ñoom buñ ci loru mhm. am na ci ñoo xam ne moom ci manipulé ci la ñu xëy ci la ñu gont mais nañ concerté wu ñëpp ba décision bu ñu ko jëlee ñëpp gis seen bopp man daal loolu laay woo ñëpp rek. d' accord alors na tàkk sëñ Cheikh Thioro Mbacké di fàttali yow yaay coordonnateur Pastef ca Touba nekk vice président groupe parlementaire Yewwi Askan Wi nekkoon mbégte ñu recevoir la bi. Euh, di remercier bu baax Issa Tine di remercier Pape mhm. suñu internaute tey moom du ñu wax fi mu nekk nii. waaw gis nga Issa moom moom mooy xool lépp luy connecté Issa remercier les internautes. dañ leen di remercier a baax ñoom internautes yooyu mhm. xam ne jamono ji ñi ngi seetaan émission bi la di l'édition du soir ndax déjà euh, lu am am solo la Mhm. coupé nañ suñu ay euh, signal yi nga xam ne en tout cas moom lañ doon émettre mais yéen ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal bokk na ci As Guèye As Guèye ñu di ko jaajëfal Thierno di jaajëfal Asi Niang Maymuna mhm. Koulibaly euh, Moussa Silla di jaajëfal tam euh, voilà ki nga xam ne moo di vieux côté di jaajëfal Cheikh Diop mi nga xam ne moom itam internaute la ak Abdou Gadiaga di jëfal As fay bu Serigne Saliou ak ñi nga xam ne ñoo nekk ñëpp en tout ba Tafa Seck Khadim Ndiaye ak El Hadji Asta Mbaye ñooñu ñëpp ñu di leen jaajëfal xëy na duñ mën a lim jëkk njëkk gis rek lañ tudd macha allah eh, cant ngërëm ñeen leen bu baax xarit xam naa Sénégal dafa fàtte léegi télé si poste modernisation boo amee sa téléphone